yalante tey jile man suukar nga def ma kafe mbaa sax ma nekk di sa guru faw tey sa yaram yalante tey jile may suukar nga def ma kafe mbaa sax ma nekk di sa guru faw tey sa yaram man sopp naa la te lii may wax xamal ni du fen billaahi yaa ma gënal saa bopp far ma yërëm man faalewul ku la mooy man sakkuwul ku la mooy man awma aaju judul yow rekk ak sa ngërëm waajal ma ngir ku fi bar xam naa ni yaa ko baral xoram ma ngir ku fi sax xam naa ni yaa ko xoram yow sam murit lu mu bon bon doo ko gis mu texam ku dul sa taalube lu mu jaggan nga gis mu texam nangul sunuy jëf te bul dellooti laf lu nu jëf te dolli nu cant ak xéewal te dolli nu gëm yoral nu wëggal nu may nuy dab duyal nu bani rembat ba far defi dex yoo xam ni day du yeyam yootal nu jàppal nu yaa xam rab wa gis fa mu ne te gumba guy rëbbu buy jub rab wa fekk mu dem yeewal nu rab yi te jat koo jat ba dootu fi jóg te may nu ab dundam ak waajaayam ak ñu bëtam te bu mu nemmiku buñ koy nemmikooti nu nit nan sant muy sant itam muy bég te muy bég itam defar nu ban jaga jag waajal nu ban bërëbër xamal nu ban xama xam fab jox nu ban ama am defar nu ban jaga jag waajal nu ban bërëbër xamal nu ban xama xam fab jox nu ban ama am jaayal nu ban tonu fi tontal nu ban dugginum yàlla bu nuy gis saxaaru jéeri beeti gëlëm gaayaa ngi sanku ji tey wut mbir ma fu mu jegewul te mbir mi yaa ko fi yor moo tee nga far mu yërëm sëriñ bi fas naa la yéene sant cant gu rëy ngir yaa ma may te ku am xel sant waa jala may sëriñ bi fas naa la yéene sant cant gu rëy ngir yaa ma may te ku am xel sant waa jala may man maa fi daa jóg di xaaraane kalaa di sarax tey maa ngi xetti li ay baay ak nijaay ak ndey miskin mu suufe mu bon laa woon di ruuj aka bay nga jox ma gaa yu ma fii ruujal bu gaaw aka bay am naa lu rëy la ma daa jortoo ka laa jaka wut am naa baam lu ma foogul yaa ma jox lu ma doy soril nga may lor soril may gàcce may nga ma ndam man jàqatul rusatul saa may gi may gu ni day man jooyatul meratul man xiifatul maratul saawar ja dem na ma dem kenn déggatul ma ni wuy man ñi amul woon xamul woon ngay xamal di xamal ba maa ngi boole am ak xam-xam di yaa di ka may saa jëm ji rekk laa àndal ba dikk fi yow nga soppi may jëm yow doo nax sa waaye ka jay samay moroom ak samay mag yaa ngi gemb di xëy jël seeni tool aka bay may xëy di sant aka way ko am yi lay may te santul yéewul góorewul nan sant léegi te moo gën nit ba sant di wéy la jëkk tey jile deewun gis ku sollu mbabal yaa dikk sànni mbabal jox muy dara ki tubéy xamal ni kenn du fi nit tey jii ku dul ku la gëm tey topp say wax ku dul kii moo di def ba di say yërëm mu ram bul seetaani yar bi mu dal gisul la yooba te yaakaarun fa waaju la muy bu dee ci wootee ka jàngi téere ak di la yoo demal layil nu te yow mii koo layal dana yey bul def lu dul tàbbi firdawsee ka waaj aka bit bul njekki nun di la yoo yow lan fa def sunu lay yow yàlla yow ki nu yor yor bamba boole nu moom ngir yàlla tin ko ci nun ngir yàlla tin mu ci moom yow yàlla yow ki nu yor yor bamba boole nu moom ngir yàlla tin ko ci nun ngir yàlla tin mu ci moom te rikkitun ko ci nun ñépp tin gu rafet ba noppi tin mu ci moom it yow ki ñàkk moroom musal ci lu bon moo nuy taxal ci ndigal moo tee ñu sànkinu moo tee it ñu def mu ci buum musal ko sàmm ko biir ak biti dolli ko mbég sàmmal ko mboolem njabootam gépp may ko lu woom tegal ko lor yépp féqal koy mbégam ba mu ñëw tegal ko waa penku ak waa soowu it ci loxoom xolam ba may sedd xel may dal yaram wa di wér ba bis ba muy tàbbi firdaw seeki canta ci koom muy seeru faw mbégam tey dégg faw mbégam tey am lu seddub xolam tey boole ñépp di tiim koo gis na koy sant kay mokkoo ko def la mu wax di waaja kay dema kay ñëw rekk kenn bañ a juum na diggamal yàlla an mboolem ñoñom ni neex di leere faw ni bëccëg ñépp sant baluum na diggamal yàlla an mboolem ñoñom ni nañax di leere faw ni bëccëg ñépp sant baluum na saytu cër yépp ak ngër yépp saytu bu wér te boole góor ak jigéen ak ñépp not ñu ni xiim notal ko yow yàlla ceddoo ko sëriñ ba ñu xëy jébbal ko jiital ko muy def loo ko def ci sagoom ñi dégg jant bi def leen ñi murit yu ko gëm ñu mujj àddina ñépp ak gaayu jàpp ci moom sëriñ bi wallu nu bii rek bi ti wallu gu neex te dal di tooyal sunuy xol xépp may nu lu neex sëriñ bi wallu nu biir ak biti wallu gu neex te dal di tooyal sunuy xol xépp may nu lu neex man yeewe may mbég yiwee may mbég yabal ma ci mbég gungee ma mbég tekk maa ki mbég fu nekk yu neex bégal ma fawwu te may ma xol bu sedd ci yow te def ma sab lar bu dul mooy benn bisu lu la neex may mag cofeel ak rafet njort ak way ak bari xel ak fit wu rëy ak teggiin ak siyaara yu neex may nuy siyaara yu barkeel ak abiye yu rëy yu nuy asaale bu nuy ñëw ak nuyoo bu nu neex may nu nuyoo bu nu neex ak dal bu dal sunu xel te may nu tàggoo bu leer ñibbi aale lu neex nun noo ngi wut pepp jóppal ndox mu takku fi yow ba max mu pepp mu ànd ak ndox mu sedd mu neex manak ñi jébbale seeni ngir suñuy daba ngi dab yépp yépp na fees ak lépp lëf lu nu neex may noo te mbég mu ñu nuy ngéejoo kañeeti te may mboolem ku nuy bëgge mbég faw ak lu rëy lu ko neex dundal te dundal nu dundal xol bu nekk ci nun nuy sant kay dundulee kay dund dund gu neex siyaara bii tëj ci buntub lor bu nekk te far ubbee ci nag bépp buntub cant ubbi gu neex siyaara bii ak bu dul bii far ci lépp naqar tefat ci mboolem lu nuy wut may nu may gunu neex yaa baytuwaame yaa fiy doxi doxee naka taw nun noo ngi taatana kay digloo ka néggandiku yaa baytuwaame yaa fiy doxi doxee naka taw nun noo ngi taatana kay digloo ka néggandiku noo ngi di seenu mbég ak yërmaande faw ci yow dottin waame yi tax xol yépp dekk liku fu nekk nay xiina kay taw xol yi dundu ñetax ku nekk am njariñam dab yépp fecc liku xol yépp nay dundu bu xol wow bu muy xawa dee bu kenn gis ndare luy tax gëm ga sedd liku noongoogu faw ak sunu bam yor mu yor bu rafet defar nu may suturaaku cant ak bayiku bu kenn dégg lu dul ak cant rekk ci nun bu kenn seere ci nun ak bon akuk xawiku na ñépp dégg ci nun aw yiw te gis ko ci nun ku nekk ñeenu nu gën mboolem ku gën kawe ko defal ci man di malal yërmaande saytu ma nag may def lu jub di seroo sab xol ba yëkkatiku mboolem ñi ngay wut ci nun ak lii nu bëgg ci yow na lépp am faw nuy teewee ko fàttaliku na xol yi sedd te mboolem mbir yi jub ku ne bég nga boole ragg yi biir ak biti saafara ko na ñépp am te bu kenn des lee nga saytu du jeex ku ñàkk jox ko ku am aslëf nga mottali ko ñu ñépp def muy murit saadix yu mel na la saf muy aw ndigal faw a koy digloo ko nit dëndiku sëriñ bi may nu cofee la gëm gu yéemu gu wér yow daala wér dolli nu wér jox nu yéeri yi wér sëriñ bi may nu cofee la gëm gu yéemu gu wér yow daala wér dolli nu wér jox nu yéeri yi wér yow daala way dolli nu way dolli nooti ñu way diggante góor ak jigéen ak ndaw te ñépp na wér sunuy yaram ak sunuy gëm yépp yépp na wér sunuy xol ak sunu pas-pas yépp na wér a wér sunuy murit yépp ak seenu murit nañu wér sunuy jëf ak seeni jëf yékkit na sell te wér musal ma ci xàcc ak kuy xàcc def ma ku wér kuy xej ji faw ku dul tàggoo du xàcc du war na mbay mi nangu bu wér baykat yi nangu bu wér walkat yi nangu bu wér lor yépp teg gi nu far te may nu cant gu wér goosant cant gu wér ak fan wu gudd ngëneel ak ndén faf ñu xasar përik def nu ku suuxal ñépp may nu jëfit joo xam ni suuxal na mboolem jëf yi soppi nu mbër xadal nu gaynde gu jóg xadal nu kooba gu jóg bub soppi raw mukk bub noonit ñëw ak lamu nar tabal nu faw ci biirum ñag bu fees ak mbir nuy sant faw ca biiram am njariñ soy lor na ñépp lottu ci def nu ay te lottu ci nun bu kenn man lëf ci nun san ñag bu wér nan wër nun def nu aw doj wu lëf dul fell lëf du ko xar te lépp lëf lu ca dal toj fell teppi ku xar tabal mu ci wu doj te def nu doj te sànge nu doj te deen wattu ca biir ak biti wattu gu wér sëriñ bi mboolem samay mbir yépp a ngi lu ci am lu yàgg-yàgg bu muy mën na yow ak sa ndigal sëriñ bi mboolem samay mbir yépp a ngi lu ci am lu yàgg-yàgg bu muy mën na yow ak sa ndigal lu am ci mboolem samay mbir nay yow ak sa ndigal bu muy keneen nit bu muy man rikk deenu defal nun ñépp deenu defal nun ñépp deenu waxal nun ñépp deenu fasal nun ñépp deenu yëgal nun ñépp wammat nu biir ak biti jëm fu la sax te deenu wammate mbég faw ak lu xel mu ne dal nun ñépp seddu nu biir ak biti jàmm juréy jàmmal ngërëm nay sunu cër fab ko may nu ñu jël mboolem lu nuy wax akay def nuy bawoo ci yow ak sa kan ak sa ndigal sa kan moonu gën loo wax lu nay la mu wax loo def lu nay la nu def loo fas lu nay la nu fas koo fal lu nay kanu fal foo jëm lu nay fa nu jëm foo dox lu nay fa nu dox foo sax lu nay fa nu sax foo dal lu nay fa nu dal nu nag li bokk ci nun noongoo gu deenu yërëm te deenu may paala kay paalee ka dox di dëggal nay mel ni noo ngi fi yow nay mel ni yaa ngi fi nun saxal nu faw ci yow mii sax ci nun dunu wal may nag siyaara bu taw féexal nga nee la ku yiw nekk ak njariñ ak njërëm ak barke ak mbigi xol te may nu nag ñi bitig leer ak ndam ak ganu ndam ak jàmm ak suturaaku cant ak sa ndigal te may nu nag ñibbi si gi leer ak ndam ak ganu ndam ak jàmm ak suturaaku cant ak sa ndigal sarax nu taw féex akub taw noo ngi ñaan aka baaw tey sàkku jàmm ju baawaa nag ndox ak nga ni waaw sarax nu taw féex akub taw noo ngi ñaan aka baaw tey sàkku jàmm ju baawaa nag ndox ak nga ni waaw yow boo xësee nangu doo gàntooti mukk taka bañ nangul te nangul nawet bii may nu wallu gu gaaw gàncax gi may dund xol yi dund ñépp juboo ngay dund nuy dund nuy déggoo te ren gañe daaw xéwal gu rëy gu mu daa am ci nawet na mu am ci biir nawet du ko suuxal tépp yow asamaaw nakkal ni dàkk ci nun xéewal ni dàkk ci nun wërtal ni dàkk ci nun ñuy cet ci lépp lu ñaaw fayul ñi lay bañ te fab seenu palag lu ñu am jébal nu faw ñu faf muy sant topp ginnaaw fayul ñi lay bañ te fab seenu palag lu ñu am jébbal nu faw ñu faf muy sant topp ginnaaw koo xam ni kii jébbaloogul jañ ko benn mu ñëw te dal di jébbalu njaxlaf nag ba mel ni njanaaw na ñépp wér ci nga am wéttal te dund ci gëm ak diine dee te bu wér am mbir mu rëy ni axaaw na ñépp dund te gudd fan di sant ka gëm ba génn àddina dem firdew si rekk dinaaw na ñépp doy ñépp am ak doy lu saytu yi doy ku nekk yàgg fi bay seerub sëtam di bijaaw doylul nu wëlli si bor doylul nu wëlli si tem musal nu faw ci ibliis ak ña dëkk jaxaaw saram nu cantu gu santeef ak defi nu ngërëm waanaw ba tax lu nu lay def loo nga nangu ni waaw ku fiy asar sama digg ak mooma kay tilimal man may defar sama digg ak yow di sant ka tuub ku koy asar sama digg ak moom a kay tilimal man may defar sama digg ak yow di sant ka tuub ku koy bonal sama digg ak moom a kay doyadil may ràññikul sama digg ak yow di fopp ak a buub ku sànni fee la ma soob ak saa ndigal ni melas man maa ngi net sa ndigal tey itte wóolu la soob te kuy ubbit sama digg ak moom a kay wayafal ma ubbi man sama digg ak yow di tibb ak a ngoob ku gis ci man lu mu may xeebee ka xas na ko lew man maa ngi lay def boroom ak ab sëriñ ni gurub ku soobu ci murit ak kuy soobu koora niroo ñi ñaara yam ku ci sàggan juubu neeti ko ciit ku gis ci man lu mu may teggee ka wéer ak a bañ may jéem a def sa murit boo xam ni lëf du ko juub ku xis ba jébbule boppam um na weeru ndigal buy mooy ndigal juubu saytaanee ku ay ni ko dit bu dee ku yàlla jubal day fëx dabeeti ndigal te sar ca faw ñu dàqal ko ayam ni ko wuub lu man di ñàkk ka am ak lépp luy mën a xew na jàmm am sama digg ak yow te la fu bañ a luub may nag juboo ku jigéen ak càkk ak ja ci yow tefam man ak ni ci say yëf ak sa xol bi yegu manut jubooku jigéen ak cafk ak ja ci yow tefam man ak ni ci say yëf ak sa xol bi yegu yow yàlla jébbal na lay caabee na kiy ngërëmam ubbil nu yaatal nu muy tàbbee ka sant ka tuub ku njàpp sab sox ni fooxub dammaam ca ndawal sab sox bu koy moyalee tib dann laa xëya bon ku jàpp sab sox ni fooxub dann am ca ndawal sab sox bu koy moyalee tib dann laa koy bon laa koy amaana mu jël sab sox te xañ la ndawal waccal ma laa koy kuk soofam du len mu man laa koy ndawal soo ko gis yor dann baa ko ko jox ba ñaanati ndawalub laa koy lu nekk ko gën boo namatee yàpp waaxul dem fa dann ba yow jébbal ko sab sox mu dal lay wax demal wuti cin ngay àbbi cin ba nga daa am cin soxam ba ni tëf ngay togg nag sa ndawal ñuy dox di bantu samban gis naa fu dan ma budul mooy mukk yal nanu may ndawal gu ràññiku loola ñam wu dem dayoran gis naa fuy palakat boo xam ni yal nanu fal palum ngërëm gu rafet faf may ni fukk galen gis naa fu it mayekat boo xam ni yal na mu may xolam ba faw wëngënee lan may gu yaatu déggal gis naa fu it moona xejjub yàlla yal na mu def xejjam bu réy bu mu won dencam ya aaye ko fen gis naa fa it bëkk nee gub yàlla yaral na nu may nuy bëkk nee gëm bu kenn du gis mu sàcc ci karam gis naa fa it noona jaamu yàlla yaral na nu def jaamam bu am ngërëmam déggal ko sakkanu fan gis naa fa it ku ñu jiital faw yal na nu def ku jiitu faw ku dootul des ginnaaw ak a bon sëriñ bi yow ki fi daa dàquk tawat ñu ni mes dàqal nu mar wi te yët nuy waame léegi rëy sëriñ bi yow ki fi daa dàquk tawat mu ni mes dàqal nu mar wi te yët nuy waame léegi rëy neexit ci guddee ki bëccëg lépp jag ko netaa barab bu nekk ni xellew ñépp seeta ki may dindil maral wi lu xeetoo ko maral na ni mes na ndox mi doy sëkk mboolem mbay mi jub ñu ni cëy saañoo ci gerte ki suunaa ki derefa aku sët na lépp nangu te yegg ak jàmm kenn bañ a moy na mbay mi yegg aku yiw baykat yi yegg aku yiw ñu mucc muuroo sunuy mbay am ngërëm sori ay xiinal te dotti mu xittee xitti waa mi ngëy suu sépp sépp na mànde màndi ñépp di way ngir yàlla ngir yàlla may nu dët gu am ay bis tegal ma cay fani fan yuy rëg rëgee ka ma sëy ñi lay moy ak ñi la dul mooy ñépp ngay may yiw sag baax a tax ngay mayew yiw may nu may gu nu doy yow rekk am diine am ngor am njulit gu ñu xam am war ma dal nuy bégal tey jii ci bay lu ñu bay tey jii la gaawu bu gaawu ñëw nga gaawe nu mbég gaaweet nuy mbég ci bii gaawoote yow sunu ndey yaa gën ci nun maama kiy bàyyal ni jaaya ki ndey te gën ci nun fopp ay soxnaa ki dong ngay way man lépp loo xam ne lii daanaa ko bëgg ka wut ci yow nga may ma ko may ni waame léegi rëy bul yedd kuy sàcc yéerey Bamba mukkati ngir ñun ñépp a koy sàcc kay lépp ay yëfam lañu yor bul yedd kuy sàcc yéerey Bamba mukkati ngir ñun ñépp a koy sàcc kay lépp ay yëfam lañu yor li ñuy wutey taaxa kiy soxnaa ki néega ki fas ci ay yëfam la ku nee ngi dox di sàcc ka lor ñi dee fi jëndee wataa kiy duubal ak koy sol ci ay yëfam la ku nee ngi tooñ kay tege bor bàyyi sëriñ bee ci sàccam ak yëfam te fexe sellal sa mbir ku mbiram sellul di sikkali mbir kuy sàcc bul sàcc yow kuy jëw nitit bu ko jëw kuy leb nitit bu ko leb kuy war nitit bu ko war sëriñ bi yàll na mu jéggal faw mooy gunu mooy te jox nu may gunu doy wallis di sàcc ka nar yàll na may gaa yi koy yaakaar a koy joxe yëf jàmmal dëgg ak suturaaku mucc ak lu ñu war xarit xarit bala ngaa yeddaate yow na nga nekk ba xam fa ñuy jaaye ay jëf jëf ju fay xala jar dinaw sa bopp ak a xeebas cam ba dee ñu ni cas jëfam ni xër sa jëf lii kenn xamul lu ko jar angaari gerte yu rëy yuy wang muusu ba dem ku koy damoo bu ñu peesee gàcce dal ko gu wér koo xam ni kii xamagoo sax yow nañuy xala def say jëf ni mii gala war tey sàkku yërëmande far pasootuma geesu nit bay xam mbiram na mu mel man rëccu naa lu ma mooy farkat bi yal na ko far te yal na far mooy gusum waajur ya mooy ba mu far defar mooy ñi nu àndal ñépp far sunu mer defar mooy ñi nu dëkkal far mooy ko nu xam defar moyu ku amas gëm boole ñépp defar defar mu boole musal baaxal nu nangu sunuy jëf yépp saytu nu ci baaxam te boole nu yor sëriñ bi naa fàtte ay soxnaa ki doom ak i fas te fàtte saa bopp ak saa kër te fàttaliku la sëriñ bi naa fàtte ay soxnaa ki doom ak i fas te fàtte saa bopp ak saa kër te fàttaliku la tobal ma lépp lu dul yow mbàkke génne ko tey saa xol te dëkke sama xol nag ba xol bi jala gënal ma saa bopp ak saa kër gi ak sama ndey ak gaa yi mbampana yee ak gaa yi kër maka la neexal fi saa xol ba dàqal may nelaw aku ñam ba buy nelaw aku ñam teewee ma jóg wuuti la loo gis fi saa xol te tanu loola nan ko tuxal wuutal fa loo tàmm ak loo bëgg yaaxara la te loo bëggul sax bu muy tàbbeeti man sama xol tegal ma tàbbig lu bon tàbbig lu bon safu la lu bon ma may teggi naa koy teggi faw waka mooy saafal bi nay fàtte mboole mbég yi ngir bëgg la naa fàtte aw naqar ak ay fàtte mbég aku yiw te fàtte lépp lu dul yow mii te fàttaliku la bil fi sa kër gi yow ku yegg si nga faj loram te lu sang rëy rëy ngir bu sa tànk jam këram digil fi sa kër gi yow ku yegg si nga faj loram te lu sang rëy rëy ngir bu sa tànk jam këram di tukkee ka jokk bokk wéy na ku bëgg a raw dangay jekki koo gis may koos lëf mu dem nga dem ku génn ñu génn si lëf ci yow kaw maa ko wax te tàbbal ci yow loo xam ni baaxul ku génn xam du ab jant nee na kay marax maa te jekki jot te jàpp ci yeneen baa fi yàlla ni gumm gëm te luy fekk mbaa muy fenk day suuxa kay sobis ngëbal yàlla moo dul suuxa kay soy bul gëlëm du lott ci lëf mukkit du jeexal yiw du dee du wopp du farfar loo ngirum dëgg di ngiram ku gis moo la wan loolee nga gis moo la jox bëtit comme moo la may nun ñépp yàlla na mu jox ngërëm ku mucc ci lëf moo tax nga mucc ca gur na tax ku jot ci lëfit moo tax nga jot ca ku ney mbiram bu nammee defas lëf ñépp bañ ko du tee mu am bu nit ñépp nammee lëf te namm ko it du am li nuy waj wajee kay soowa kay kër këree ka def bu pënduuree mbir am te yàlla na mu yóbbu ndam bu pënduuree ndam jëm barab gàcce jëm barab te yàlla na mu jël ndam lépp am gan ñu saf xoram kañuy wàcce ndam yàlla nay ci nun faw yàlla na nuy kañuy teg ci ndey jooram ba ndam yokk waa këram kañuy wàcce ndam yàlla nay ci nun faw yàlla na nuy kañuy teg ci ndey jooram ba ndam yokk waa këram bu làqoo boroomam dem di noppalu te ñu fii mu woo yërmandeem ak yàlla ndax te ñu wallu mu bu làqoo boroomam dem di noppalu te ñu fii mu woo yërmandeem ak yàlla ndax te ñu wallu mu bu dikkul te yónnee ndaw yi sedd sunuy xolit mu doy sëkk bii rek bis nun ndaw yi doy nanu ndawam yi nañuy ñëw faw tey asiw faw yi njëkk dawal ndég bu bis mbaa guddi yi te nuyoowunu ndawam yi nañu ñëw faw tey asi faw yi ndég ndawal ndég bu bis mbaa guddi yi te nuyoowunu njëgam dunu gis jëmmam ji it saa su jot nu gis njariñ yi mu nuy jox faw nuy sant war nanu njariñ yi mu nuy jox day du dog mukk seen saa danoo firnde lii tey war nanoo day ba ëpp nu te bu jant dee senkit mu senke nu ay njëriñ bu ab jant soo faw it mu sol mu mbég ak tono te xam na aw yiw jépp waayam ba ñépp for mu door a demit kii moonu bëgg te sopp nu te yal na boroomam fab mbég ak yërmandee kiiw joxal nu ko nun gaa yi nu may jàmm saytu nu te yal na ni ca xéewal yu dul jeex ak i njëriñ yital nu ko nun gaa yi mu jox lépp wattu nu yal na ne cat loo xam ni sedd na ab xolam tegal nu ko ci ndey jooram it ndax mu santunu te yal na ne cat ndollem lu tedd ak ndam ak ngërëm mayal nu ko ndax muy bég di sant ba dollinu te yal na ko jox yii faf nuyul nu ko teg ca nag mu fay nu ci barkeem ak ngëneelam ca wallu nu garam nga guddul rekk saa su nekk nga rotti mbég nu ñëw far nga ruttee ti tiraa nga nu del si far garam nga guddul rak saa su nekk nga rutti mbir nu ñëw far nga ruttee ti tiraa nga nu del si far nawet nga bu barkeelit bu am ndox bu dul téet ku farlu ci yow far lëpp lu ñuy wër a kay sawar te soxna nga it soo xam ni sii ku la jël durus du dellu ginnaaw it mukk day jëm kanam kanam taw fas nga it woo xam ni wii ku la saytu jag këram jàng mu am mbooloo mu koy dimbalee ko wër baram nga bu seddub xol dalum xel bu ñàkk lor ku dëkk ci yow mi naagu ay naagu jépp lor mbirum ndam nga it moo xam ne waaju la soobu bég te yëgga nga neel ak jàmm yaa sell sell mbir te ak lem nga it goo xam ni saafara ngay jarak jarak ju la mus wér faw nun bu nu ragg far ngërëm nga lu mer dul topp mukkati yaa rafet te mat di fexee kay wut ba dee rekk yaa ko jar sa mbir jub na dootul yàqu sam pexe gan na it te xam nañ loo bañ sànni say bañ ñu gañ ñi far ñu làqu fi yow ngir kenn du làqee te kenn sax fi yow di ko caw noo ngoogu nun bu nu dégg yar saxal nu ci gépp gu yokk dolleeti nuy njariñ yu toll ni suuf ak jur gi toŋ ci kawam di far sa diggan ma nit leeral ko nañ ñi nañax nañax te buuxati nuy ndég jopp nuy dajalee ka far xaral teg gi wopp ak lor te teg gi lu lay sonal dund ba mbooleen nit ñi fàddu nga dem sa yoon xaral teg gi wopp ak lor te teg gi lu lay sonal di dund ba mboolem nit ñi fàddu nga dem sa yoon na ngay dund yàllay dund ngay dundalum ngërëm di bàddali jaamam ñépp yow la ku nekk boon te yàlla na say noon ak salor yépp far ñemes ba doo seeru lor doo seeru mukkati benn ñoon sa donga yi seeni fan na gudd ñu am njariñ te dolli ku wërsëg jópp am ren sarax bu doon fabal suusi séppal nit ñi séddale say murit ku dul sa murit nay dox di ñee sa murit amiin nga say soppe sut mboolem sa bañ yépp fopp fan nga mujj fi ñépp ak gaa yi lay dimbalee kamiir safal mu safal mboolem murit yi nu bokk saf di wax wax ju saf tey dox di jëf jëf ju saf ju niin na muy yépp far may yépp dolli ku ñépp jóg te jag faw may yaa ngi ku bañ ban ba doo ci fóon danoo war a booloo sant cant gu am xoram ku am waame boo santee ñu dolli la ndox te xiin te am nanu waamey mucc ak jàmm ak njariñ bu nuy sant am dolleen tawat daala mat ni ñuun ku cantam ga dul dog mukk waamey mayam du dog dafay jàpp ndëndum njàmbat ak mer di bëgg a jiin faral taj yow mi làmbi cant te jéem a xub defal cant sa dëkk ak sa mbir def ko fawwu yoon faral sàjj yow ñuy làmbi cant te jéemawub defal cant sa dëkk ak sa mbir def ko fawwu yoon lu yàgg-yàggati bul ñaawal sa njortal yow sa sang am na yéwén man lépp yéene nga am lu yàgg-yàggati bul ñaawal sa njortal yow sa sang am na yéwén man lépp yéene nga am loo man di bëgg bu jëpp loola jox la ko it dalaa fa soo jox lu gën far loola mbaate kemam yow sant rekk la war ngir am nga jagle gu rëy bu ñépp ngeeju te day jëmmoona fawwu kanam doo daanu mukkati yow yàllaa la fab jëme kaw ak yonnenam ba na sam xel dal nga dolli ku gëm li ngay mébét ak li ngay déeyaale waxtu wu jot xamal ni am nga ko am nga yiwu xel nara dem yiwoo gisul ak sa bët biit asal mu ngi ñëw foo yéggulit lu mu jëm-jëm kaw asal ca nga jëm litee nga gis lépp doo gis gubu ñor te jotul waxtu ñoram na nga bay toolum ndigal te gërëm ku bay ndigal ba mu ñor doo jeele mukk ngërëm doo jeele it wenn yiw foo nekk ëpp fa ndam lu nekk am na barab loo yegg nag barabam gis loola loo bëgg yow waaxul ba jot barabam ku xes ba jóg jëm ci péey bi yàlla loo amulit muñal téwéy rekk boo yeggee doyal ko ndaxam sëriñ bi yar na nu may ak yegg dëgg gu wér ci boppam ak ngërëmam ak dëkk ci ndigalam te yàlla nan may rafet njort ak di jëf lu rafet tey sant kay bàyyi koo kay yokk faw aka dem te yal na dundal sunuy xol nangu jëf ju nu jëf yaatal nu faw ci boppam may nu dëgg xolam te yàlla nan ubbilit buntum ngërëm bu nu aw ba jiitu képp ku dee faa dox di yéeni mbiram te yal na jiitali taw féexa nga nee la ki mbég jébbal nu faw te may nii kër yu jag aku ñam te yàlla na jiitali mbóot ak barke dëkk dëkk yiw jébbal nu faw te yët nuy taalu bee ki dërëm te yàlla na jiitali mbóot ak barke dëkk dëkk yiw jébbal nu faw te yët nuy taalu bee ki dërëm te yàlla na jiitali mucc xii wala gani mbég jébbal nu faw te may nu jag safal nu xoram te yàlla na jiitali cantam yépp ak yi ngërëmam jébbal nu faw nu def soppeem ak xaritam te yàlla na jiital lu dee faa dox di bëgg ak a wut jébbal nu faw te may nu dégg jépp waxam te yàlla na jiitali xam-xam nag yu am bi njariñ jébbal nu faw te dàkkul nuy sa beekitimin te yàlla nan may nu xam mboolem lu jomb la xam te yàlla nan may nu am mboolem lu jomb la am sëriñ bu lay ubbi biir ak biti ngay niru dex jox lay dërëm teg te ay fonkal te gàllu la lëf sëriñ bu lay ubbi biir ak biti ngay niru dex jox lay dërëm teg te ay fonkal te gàllu la lëf masee fu koo dégg ci maam ak mamar ci ba tey lii ban ba daa la ko man lii ban ba daa la ko def sëriñ bu nekk dadaa jox yàlla lëf dese lëf sëriñ bi jébbal ko léppam teg ca jébbulu fa dañuy joxey asaka kay dox di sàkki sarax mu jébbalet jaagam ak boppam di sant ka jëkk suuxal na ñuy firi ñépp ak gaaya ñuy firi it rusloo na buur ak i dak soofal na képp ku saf moo nangu cafkal yor moo nangu bayre bi jël moo nangu barke bi yor moo def lu jar jërëjëf moo boole xam-xama kub am am te sañ mën a def wenu arab mën na caa faj aajo sax te du raf budul ko nag yaru waayam dootu woppaka dee budul ko nag yaru muy dekkal ñu dee ña ci tës ab xej ji def nii ca gën ab xej ji day mën a def ba noppi nag bañ a def ngir moytu rekk suruf ak xej bi day xam te faf nag mel ni lëf la xamul man lëf te mel ni mënul def nit te mel ni ku dof koo seeru ak xej ji lay wut waaye xej ja jafeñ ku xej ji boo sàgganee xëy daanu mbaa nga tërëf sëriñ bi may nu jigéen goo xam ni am na njariñ te ñàkk lor faw bii rek bi te dolli nu lëf man ndaw si jox na ma ndéegookub añak njoganal te may na ma reer akub leerit xanaa ji la des man ndaw si jox na ma ndéegookub añak njoganal te may na ma reer akub leerit xanaa ji la des cam rekk rekk a ci des jël ndam li rekk a ci des fab yóbbu rekk a ci des muy togg ñépp di mus maa ngi di sàkkuk jubookub jur ba yegg leren teeggali sama ñépp ak jàmm ñépp di gis na jàmm am përe jug mboolem sunuy pexe jub mboolem lu nuy ñaanakaay bay nangu ñàkk ni mes wësëg wi sottiku ànd ak diine barke bi ñëw ku nekk am ngërëm ak mbooloo ñu faf di nu wis sëriñ bi far mu mbooloo far ko aw ndigalam muy dolli ñépp jur ak xer wunti mooy ni taraf ku nekk aw ndigalam jébbal ko faw mbiram jàppug juram di ko jox tey dëddu tagga ko xas sunu diggante ni nañ ak jàmm xol bu ne bég nuy dund kay wér sunuy ndollen ni gàññi ni xus ku nekk génne këram ànd ak ngërëm ni jalañ joxe ak juram ak mbiram ak waa këram ci lu fés nu gudd fan wér te am ak doylu ak yu nu doy nit ñépp bokk nu ñee nit ñépp bokk nu rus mbooloo yi wut si nu nuy booloo di wut si këram nuy sant muy sant nuy santante ay ni melaf ñu teg gi lépp lu dul mbég dox ci mbég wéye mbég ba yegg ci mbég yu dootul jeetalëf du ca des sëriñ bu mat ba ñu daa sakkoo ka bëgg a ngi nii njariñ lu rëy lañu daa sàkkoo ka laaja ngi nii sëriñ bu mat ba ñu daa sàkkoo ka bëgg a ngi nii njariñ lu rëy lañu daa sàkkoo ka laaja ngi nii yàllaa nu jox bii sëriñ ak lii njariñ nanu jóg tey jéema sant bu wér jàmm ngënee la ngi nii sëriñ bu jar xëy ni mes jóg dugg àll di wéy di laaj kay wut ba am téeméeri at mi ngi nii njariñ lu jar laxas raflee ka xiif ak a mar ngir bëgg koo am ba dee faf jot la yit mi ngi nii noo boole nag bii sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te kenn réeru ci ay bokkam lu màgg a ngi nii ak may gu tedd a ngi nii ak may gu dijj a ngi nii ak may gu baax a ngi nii ak may gu sell a ngi nii ak may gu wóor a ngi nii ak may gu leer a ngi nii ak may gu dër a ngi nii ak may gu woom a ngi nii ak mooy gu tuubee fa ngi ab lar bu tuuba ngi nii ab lar bu réccoo ngi nii njébbal gu wóor a ngi nii sëriñ bi jox naa la nag saa bopp jox gu rafet teg naa ca it lu ma am saa lépp lépp a ngi nii fasootuma karabaane kay werante ci lëf fasootuma gàntu lëf saa dëgg dëgg a ngi nii dëral nu këngati feesal noo ki ndimmali mbég yu dee fi gis ak yu deeful gis lu duufa ngi nii yëfal mu fal mu te may nub yar ba yar du nu dal tey ak ëllëg man la may sàkkoo kañaan a ngi nii saytaane moo bon ci nit day sàkk wunti yiwam tey ubbi wunti loram yal nan ca yàlla musal saytaane moo bon ci nit day sàkk wunti yiwam tey ubbi wunti loram yal nan ca yàlla musal koo fuy tëral aka teg foo xam ni yéggu fa sax mu yot la ful la akuk senk ak réeg lu jubul ku yoqi réccu taxaw dootoo sawar ci mbiram dootoo texeeti mbégam muy door a gis lu ko dal sëriñ bi dàkkul mu ibliis ak loram bala moo ñëwal loram ne ko teggil jëm feneen ko xel xam naa la man ñage saa boppam ñi may defaral xam naa la it ñage mboolem kuy seral sama xol tàbbal ma ci seng kiy baryeeri cant yi wér te def ca biiri njariñ yoo xam ni dal nañu xel musal mu faw ci yokkat ak lu koy taxa def te may nu nag nuy juboo kay jub te faf di jubal jubal nu may nu ñu jub ñuy jub nu jub di juboo tey bokk sax ci ndigal ngay boole ñépp bégal musal nu ci ndof fegal moom xel mu gàtt mu bon te def nu nit coy kuy samtug mayam akaful wéréw mu may nu wéral ak gaa yu wér yu wéral ak may gu wér cëng biir ak biti boole nu fal mun ñépp takkal nu ndombay tànk faw te leeral nàññi nag sunu digg ak yow ñu far mu safal ñun ñépp takkal nu ndombay tànk faw te leeral nañ ñi nag sunu digg ak yow ñu far nu safal safal nu sapp te may nu fan wu gudd ak yiw nun noo ngi lay sant ndax yaa mucc yaa nu musal na cant ñëw ñëw gu seddu xol gu ànd ak yiw te fekk fi yiw te sax feeku yiw ak sunu mbég nag cant ñëw ñëw gu seddu xol gu ànd ak yiw te fekk fiw yiw te sax feeku yiw ak sunu mbëg taxañ ko benn nu gis jébbal nu faw nu jël loo xam ne lii nar na koo dog loola jàpp ko dog lu jëm ci nun fi nga nee lañ mbég lu koy xala dog dal nuy dogal loola tis tis yët nu cant gu mag loo dog mu dog loo dogul nag kenn du gisul lu ko dog dogal nu luy dog sunuy mbég jox nu dog bu nu log yewil nu lépp njariñ dal koy wëtal si fi nun mboolem njariñ yépp ñëw sennas njariñ bañ a gat yaa nekk fépp di dindee kay defit lu la saf loo bëgg a def doo ca am koo cay xalaat ak a nekk mboolem lu nuy bëgg kuy bañ ak ku bëgg na am lu nuy bañit bu mu am yaa dàq ñoddi te fekk ñoddil nu tey aajo ji nuy aajo léegi mu ñëw dal nuy fegal nag lu koy tee ñëw mu wàññi ku teg ku nekk lew na la ak mboolem yëfam yamu yor yow loo dogal ku ko bañ aw nag la mat na ni ndig koo bind sàkkal nga kom nos saytu nos bate koo fiqum nosam mu ni jaasi taw yaa mata wet fexal nosub kunu aajoo gis mu fëx ni jalañ di sant faw wakanaa moo jaalu xew ba ma jóg na lépp lëf lu nu saf ak képp nit ku nu saf xëy xëy mu sell mu lor nekkul ni jaasa ki ndépp koo xam ne nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te déglu wax ji leen may wax ndax mu làq ngërëm koo xam ne nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te déglu wax ji leen may wax ndax mu làq ngërëm bësul taxaw ne te tey jii yaari gaay a ngi nii ku nekk ngi peese tey yokkal përey xaritam marel dafay peese ban bay peese kuy wuti ndam na jox morel gerte jox nag ban ba ay dërëmam ku peese nag fa morel jóg teggi ban ba diwi yor xaalisam fu mu jëm doo seeru muy ami ndam ku bëgg gerteeki tool ak gaayu nangu diwi na jox sëriñ bi leen ngir yàlla mépp mbayam ban bam nawet la bu nangu a nanguloo ji mu sax te loo jiwul kët du sax ruujal lu bon te jigëm mi ngi di wooteeka dundal diine nam wuyu nun te dëddu kër yile ak jur yi te jëm fu mu jëm naafiq baaxul te naafiqi kanaa sama ndey ak naa samay bokk ak kër gee ma tee mën a dem ku gëm boroomam ndey ak soxnaa ki baaye ki jur du tee mu dem ku gëmul wax ji na laaj ku xam moo jaaku ndey ak i baay ak soxna dog ba demul bu dee lu muy lay sangam bee mu muy ndigalam kuy topp bakkan ak i bokkam ba dee dana xam ni yàlla bindu ko ngir bokkam ya ak bakkanam mu daaralante ak i baay ak ndey te jaamu ji yow ka bind baay ak i bokk ak ndey ba làq ngërëm ma jóg defal saa xarit bii nag lu ñépp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma jóg defal saa xarit bii nag lu ñépp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma jox la fi dénk tey jii yow Muhammadu Géey boo xam ni moo gën ci yow fopp yi gëléem ak i fas notal bakkan bi te farloo farlu yow ci ndigal nooral ci yàlla sa diiru dund rekk ni mes ak dund yombul yombul ëpp naa fo élëf na ngay waxu yiw a kay diglee ka def ak a fas jàngal te jàngale jàng ak jàngalee gën a rëy ak fay te fay ga ku dul muñkat bu rëy du ko mos ku mun la muñ faw waxtaan ak dox ak gisu nit doo am ci yàlla lu ñuy naw maa ko waxa ci lu fés ku mën la muñ faw waxtaan ak dox ak gisu nit doo am ci yàlla lu ñuy naw maa ko wax ci lu fés yow sa murit na rafet say pas-pasit na rafet loo man di wax ak a def fawit na mel ni wurus te dëgg waxtu jot tuubal te sant bu wér ab lar bu dee tuubalub sangam di sant du rus teblar bu nekk mangaaki may mangaaki moyit te may ya sant ca des mooy yépp tuuba ca des nekkal di sant ka muñ tey réccu lépp lu bon ndax yàlla ngay waaju doy lay may te set ni welas sëriñ bi yàlla na nu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd ak wér teg ca nag di nu wis muhammadoo dénk baa ngi jàpp rekk a ci des yàlla nay sunu yiw di saw yiw tey texe ku ko gis na fukki waame yu ànd ak barke xëy ni yëreet rangoo ñi mboolem ñi nuy bañ ñépp xëy ni yëreet na fukki waame yu ànd ak barke xëy ni yëreet rangoo ñi mboolem ñi nuy bañ ñépp xëy ni yëreet raw ñépp gën ñépp suuxal ñépp dëkk ca kaw sañ man te xam gudd fan am lépp sotti ca leet nu ñépp boole nu jox yi waame jox gu rafet nuy weyte saa sunu jot gis mbég mu rëy ni jumeet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xaratil jàppal nu baaxati nga boppam paxar ko xareet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xarati jàppal nu baaxati nga boppam ba xar ko xareet ku nekk naa ci kay yéemoo ka mu ñàkk a gëm tey sant kay soowa kay saabal ba xaw ni tareet te def ko xar baaxi jàmm ak mbég yu ay bañ a am te ñépp ñeenu ca bay booloo ka ñëw dinu seet fuk cant nekk ak njariñ ak barke ak sa ngërëm ak xol bu sedd ku yiw ngir yàlla nee ko ru seet tabal ci nun faw biir ak biti fal mu bu wér te def nu faw ku deeful wax ci lenn ti déet fegal nu kuy gàntu faw ak ngàntam ak xadadam notal nu ñoddil nu kuy bañ na nga wàcc mu wéet ñoddil nu yiw wu nu faatoon ak njariñ lu nu raw mu dal di ñëw ku nu faatoon it na xëy ni dareet safal mu faw ni suukar ñii di macc ak a bég ñeeyit di meccoo kamer seenum ci nit ni lu seet saytaane laa jublu ngir suy gis ku am mébétam mu dal di gaññi barangooñam yafaf ni yéreet mboolem lu daa jafe ñan mboolem lu daa tëwu nit na yomb faw fi nun mbër yépp ñëw ni ñareet ni sa digg ak sëriñ bi mel sedd na xol ni diggam ak yàlla melit sedd na xol sëriñ bi am na la nga am ko bu rafet am na boroomam it mu am ko bu rafet boo ko gisul muy jàq kay tiite kërët bu ñu la gis ngay jàq kay tiite kërët koo nga bu wér bu daanuwul doo daanu bu daanu mukk sab sëriñ du daanu loo man di dégg ciw ayag lu dee fi bañ dana la mooy teeg ëllëg dal ña la bañ déefu la gàntu sam nawet du gàntu doo ñàkk mukk doo dajee ki nattu sant la war sag maasa ngi jajjaka gor ñu may la faw dex gudul ferati far sant la war sag maasa ngi jàjjaka gor ñu may la faw dex gudul ferati far foo mën a tee nekk mu def njëndi lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy foo mën a tee nekk mu def njëndi lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy jamkat bu dul mooy ngee saytug fital gu ñu sox tarab yu duufa ngi nii lee ñépp am lu ñu set na njortu yépp rafet xel yépp dal ku ne bég di seenu jàmm ku yiw tey farlu farlu gu sax bu njortu ñaawati bum xel génn lëf du nu dal lu dee fi bañ teggi nay wey faf ni meng ci pax ak sant war nanu ngir jamkat bi day jami lor di jam njariñ lu ci jóg boppam ba toñ ni rajax lorak njariñ lu ci fëx muy fàdd ñépp di gis njariñ du raw lor du ñëw bii daan na yàlla na fi sax moo nuy fegal rabu lor moo nuy mayit rabu mbég buy dund ñépp di dégg muy dund lëf bañ a nax fu lor ni ñokkete muy tequb soxam mu ni mes foo ak njariñ feeñe muy ñu dee kafab dina jox man génne naa ci lu dul yow faw tàbbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la mooy man génne naa ci lu dul yow faw tàbbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la mooy sàkkal ma nag pexe maa ngi aw ma lëf lu la mooy te bëgguma am lu dul loo xam ni yaa ma ko may setal ma wicc ci mboolem lépp lëf lu la mooy setal ko wicc ci man def ma murit bu la doy sunu diggante na gëndoo benn feese ni dex te leere naññi ni bëccëg nuy bérax bañ a fay na buumi cant yi wér yoo xam ni yii duñu dog tukkee ci yow ba ci nun muy sant faw waka ngoy ngëm naa ci yow ngoy ci yow jëm naa ci yow ja ci yow yaamante yow rekk laa def loo defal ma lu rëy ne naa yalax lu la mooy muñ naa ko muñ gu rafet wan naa ko am doddu xañ ko xar kanam ni la day yow rekk laa dese tey fat naa la fablu la mooy jañaat te biti mu génn ak mer di gàññ kewi ku ñàkk laa ku deseetul lëf te bëgguma lëf lu dul yow ak sa ngërëm feesal nu del la ki may doylul nu wëlli si nit doylul nu wëlli si yëf te may nu teenum ngënee la ndég gudul xamadey tey ak ëllëg lu nu fuy aajoo ka soxla fajal dàkkul niit luy waral nuy dox di nii naka lay mboolem sunuy aajo ak aajo yi topp ci nun fajal nu yépp te dàkkul ñépp tiise ku ay mboolem ñi lay topp seeni aajo faj ko bu wér te dàkku gépp taat fekk luy waral nite mooy yow yàlla wan mu sëriñ Tuubaa mu tedd ma tey te may nu teg leer ak ceexan mbëgëg lu mu saf ngir yàlla wan nu ko wan guy tax mu sant mu bég ñuy bokk sant ka bég yonen ba boole nu faf sëriñ bi yàlla na sab xol sedd guy ci nun te yal na mboolem sunuy xol sedd guy ci yow sëriñ bi yàlla na sab xol sedd guy ci nun te yal na mboolem sunuy xol sedd guy ci yow nu ñépp yaa na nu sax ci jub te mel na la sax ngay sant faww ci nun nuy sant faww ci yow sëddul ni cee ba mu tooyal xol yi xeppati nag nga ñépp dolli ku gëm xol yépp jublu ci yow nay mbég di tukkee ci yow mi faww jëm si ci nun nay mbég di tukkee ci nun mi faww jëm si ci yow may nu juboo faw akuk soppante dëgg gu wér te may na ngir yàlla tawféexit gu yéemu ci yow banal përëg sunu diggal yow ba yiw wi ci yow giwal wali ñëw ci nun nuy ànd dellu ci yow sooga mu dellu ba nuy rembat di feesalu nit di mut kay musle tey yokkoo ko yokku ci yow yàggal ci àddina boo yàggee ci àddina yow ku nekk am na bëtam nit ñépp sant ci yow yàggal te yàggal nu yow sag yàgg am na njariñ yàmman fi yàgg nu yàgg yow te dëkk ci yow yeesal nu peq te yeesal peq nag sunu ñun te yeesalal peq mboolem gaa yi topp ci yow may nu daloo bu nu boolee kii sagara yi nu yor bàyyil sunuy sagara nun ñii te dolli nu yow yow mbàkke ak dex nga teg dex lëf du tax mu tilim sunuy moyeg sunu bon bon yépp xañ na ci yow bu jàpp mukk sa njaambur gi ci nun yërëmal te comme nun ñépp far tàbbal bu sell ci yow loo def lu dul jàpp sa njaambur ci nun mu woyax loo mën di def ak a wax yaatal mu faww ci yow ubbil nu ngir yàlla ak yoneen ba wunti ngërëm ñun ñépp nuy aw ndigal delloo ko sant ci yow xalal nu xallu wu tukkee nag ci yow ba ci nun nuy aw ca xallu wa ànd ak xol yi sedd ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd def ko bu wér sa xol ni guy yi ci nun sun xol ni guy yi ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd def ko bu wér sa xol ni guy yi ci nun sun xol ni guy yi ci yow sëriñ bi saa xol bi yow mii yaa ko dëkke bu wér saa xol du kër gu la mooy saa xol du karlu la mooy bu jant fenkee ma gis man mii nga yendu fi man te buy soyit nga fanaan ak man ba guddi géwéy yow laa di lambaka daj yow laa di laajaka wut yow laa di jeexaka for yow laa di taggaka way yow laa di seetaka gis yow laa di gontaka tey yow laa di xoolaka ree yow laa di santaka roy yow laa di dégtalu nit yow laa di bantu saket yow laa di xaaru desit luy des sabal dina may yow laa di topp ka gëm yow laa di yéem a ka naw yow laa di faalee ka jëm ngir yaa di waaja ma doy yow laa di yor fu ma jëm yow laa di jàpp ka yor yow laa di jox lu ma dul jox mbàkke baaye ki ndey yow laa di sàkku sa mbég ngir bëgg a jot sa ngërëm yow laa di daw ku la mooy yow laa di daw lu la mooy yow laa di sàkku sa mbég ngir bëgg a jot sa ngërëm yow laa di daw ku la mooy yow laa di daw lu la mooy mi ngi dajee la ka seddu xol te seddu yaram te seddu bët rëy si mbooloo mépp bett ku ne li nuy dajee la ka seddu xol te seddu yaram te sedd bët rëy si mbooloo mépp bett ku ne sëriñ bi far na nu yaatal fam nu boole bu wér ci waa këram far nu sàkkal as mbarab sunu ne yàllaa nu bett ak mbit yàllaa nu bett ak may yàllante gaa yanu daa ñaawal ñu xam li nu ne mboolem ku daa bañ nu am ab làmp janta ngi nii mboolem ku daa bañ nu am ak bënn géeja ngi nii alxamdulillahi raw naa mucc naa pexe naa am naa li may sàkku biir ak biti wàll gu ne raw naa lu bam la ma daa daw jot ngërëm ka ma daa dab jiitu gaa ya ma daa raw tey mbégum fu ma ne jàmm ak tiraanga ak yiw àndin mu ànd ak ndam ak barke ak bayre laa làmboo ki may yu gëne sëriñ bi def na ma faw dex barab bu ma ne ñuy naan kay fóota kay duy tey yenoo ka yene danaa ko sàkkul ngërëm ak xol bu sedd ak fan wusut ci fan yépp ak ndoleen lu ëpp lu ne te mbàkke yal na fi yàggan jépp waa ju ko gëm ju koy siyaaraaka dolli cant waxtu ne te mbàkke yal na fi yàggan jépp waa ju ko gëm ju koy siyaaraaka dolli cant waxtu ne feesal na kër yépp dell ak jur gu lew aku nit feesal sunuy xol ak ub xam-xam kilee matane mboolem sëriñ saa ngi saf ay donga ngir na mu mel tuutal na mboolem ku rëy suuxal na képp ku ne mboolem sëriñ saa ngi saf ay donga ngir na mu mel tuutal na mboolem ku rëy suuxal na képp ku ne